Jaase Pël. Jaase Pël a na ko. ab ab ab Pël la. waaw de. waaw waaw. Jaase Pël ay ca Ganja Fama nga noona. Aïcha Ganja jël na tànk ba ey war na ko ndombo Ganja Fama Aliou Ndiaye war na ndombo war na ndombo Ganja Fama Aliou Ndiaye waaw waaw Ganja Fama Aliou Ndiaye Ganja yëkkati na ko door ci suuf cey Ganja dem na demi final ah Aliou ah, bi war na ndombo Ganja Fama Aliou Ndiaye waaw waaw Ganja Fama Aliou na ko door ci suuf cey Ganja dem na demi final ah Aliou Ndiaye ah, bi